conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyantoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu xamal naan njiitu réew mi di président Macky Sall mbooleem ñi nga xamante ni ñoo war a def déclaration patrimoine maanaam wax seen moomeel nan la toll ci kanamu of nag ñu daal di koy def waaye nag la ñu gis bëri woon na ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi woon ci réew mi de ko njiitu réew mi di président Macky Sall mujjoon yëkkati woon ay kàddu may leen délai bu toll ci quarante cinq jeex na altine ji nga xam ne moom la ñu génn waaye am na kenn koo xam ne waaye am na kenn koo xam ne war naa def déclaration patrimoine te ba léegi ni defugu ko yéen kaay gii di réew mi quotidien ci la xëy ñëw waaye nee na ñi nga xam ne ñoo war a def déclaration patrimoine maanaam wax seen moomeel nan la toll bari nañ ndax bari na ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi si njob baxtalu nguura war nañu ko def moo xam ay ministre lañu wala ñi nga xam ne ñoo jiita ay institution wala ay agence wala directeur général société publique kan ñoom ñii ñoo deful déclaration patrimoine ak la nga xam ne maanaam ko ci mën a fekk yéenekaay gii di Libération moom la mu xëy wax nee na am na ab ministre boo xam ne dafa lànk kandaare bañ a def déclaration patrimoine mel ni ku bëgg a jàmmarloo ak Macky Sall yéenekaay gii di L'Observateur xëy bàyyi mbir moomu wax ci lu jëm ci wàllum njàng mekk njàngale mekk étudiant yi nga xam ne ni ki démb la ñu waroon a commencé waat seenum njàng waaye fiasco total lañ ci gis étudiants yi ñoo lànk kandaare bañ a jàng yéenekaay gii di La Témoin nee na loo xamante ni waajoon nañ ko ci lu jëm ci dooraat njàng mi ci daara yu kaw yi lépp ak lajjite moo ci am ndax étudiant yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru jànguñu nekk Gaston Berger jànguñu ak ñi nga xam ne ñoo nekk Bambey yéenekaay gi di Vox Populi nee na désordre total moo am ci li nga xam ne mooy dooraata njàng mi ci université yi bu dee nag étudiants yi nekk université Gaston Berger ñoom nee nañu ñetti fan yoo xam ne maanaam duñu ko jàng ba pare dañuy lekk duñu fay nee ma ngénte tubaab yéenekaay gi di Le Quotidien ne dooraan njàng mi ci université yi li nga xam ne moom lañ si nemmeeku ci mbooleem université yi nekk ci biir réew mi maanaam ab faux départ étudiants yi ñoom si seen bopp wuy si wun woote bi nga xamante ni woon nañ leen ko journal bi nee na tey ji la bakk lu toll si junneek juróom fukk ak benn junni yu toftal juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar ci ay candidat ñoo ko fas yéene def yéen kay gi di Sud ñu xëy fekk fa Sidiya Ndiaye mi nga xam ne moo jiite kuréel gii di ànd gësama ëmb ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram ñoom nag daat nañuy tuumal ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi yaram gi ci réew mi ndax ñoom nee nañu 69 yi nga xam ne état bu Sénégal génne woon na la santé 69 milliards yooyu la la dugg opération gox yi la ñu daal di déposé ab préavis de grève ndax ñoom nee nañu ay jafe-jafe neen la ñuy dund xaalis bi nga xamante ne dugal nañ ko si loolee ci boppam la ñu bëgg mu leer ndax ñoom Sidiya Ndiaye ànd gësam dañoo njort ne dafa am ay léexóor yoo xam ne am na ci xaalis bi nga xam ne jox nañ ko service su Abdoulaye Diouf Sarr yi yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu kuréel gii di waa Yaana Mar démb daj nañ loo xam ne mbuuru daju ko ci ab taal ndax talaatay orange la ñu doon amal ni ki démb doon déposé nag ab lettre ci siège orange bi nekk bi fële leen police fekk mara de taali ci weeden bi ki nga xam ne mooy Aliou Sané ca la bokk ak kilifa l'observateur na lu toll si juróom benn ci ay membre yaana mar ni ki démb ñoo ngi woon ci commissariat central ci guddee guddi laas yéene kaay ne Ardo Ñing mi nga xamante ni moom la ñuy wax ne gendarmerie daf koo dóor ba mara de taali ba mu nag porte plainte mbir mi fas yéene ko yóbbu fa mbaxana doonee benn yéene kaay gi nee na la nga xamante ni moo daloon Arouna Sy ci ndax mooy yoota colonel Sarr ci gendarmerie yéene kaay gi di Sud Quotidien mu président Macky Sall dafa mel ni dafay waajal élection locale ndax en tout cas ni ki démb bu rëy amoon na ca palais ba Aly Ngouille Ndiaye ma nga fa woon Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Mahmoud Saleh enquête yéen a kaay xëy ci opposition bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ca ab guerre bu méttee métti la waral mooy chef de l'opposition bi nga xam ne moom la ñuy ŋawtu ŋawtee mu Ndiaye Cissé 3D moom nag nee na nekk ci réew mi jamono ji di fi wax waxi chef de l'opposition loolee ci boppam lu dangereux la ba pare lu teel a teel la Idrissa nee nañu maanaam mooy chef de bu ñu ko tegee ci élection présidentielle ñi nee nañu mooy chef de l'opposition ñu ko tegee ci assemblée nationale am na sax ñuy wax ne Ousmane Sonko mooy chef de l'opposition bu ñu ko tegee ci opposant bi nga xam ne moo gën a radical maanaam opposant bi nga xam ne moo nekk ci mbedd mi di ko ñàkkante ak Macky Sall yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal nañu officiellement Alpha Condé candidat la maanaam sampaan na ndëndëm ngir am ñetteelu mandat journal bi nag la mu xamle mooy Alpha konde mi nga xam ne bëri woon na ñoo xam ne dañu ko nawloo woon maanaam ci dindu Afrique ak ci bitim réew Alpha Condé moomee maanaam mooy wàcce boppam mooy deltu ginnaaw ni ab sir journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak lu Dale Diallo ñoom seeni manifestation dooraat nañu ko Dakar Times nag nee na Alassane Dramane Ouattara moom investir nañ ko ca Côte d'Ivoire Condé candidat la Macky Sall nag moom ci boppam ma ngi wër-wërloo ci réewum Sénégal lànk kandaare bañ a wax lu leer ci mbir mi Dakar Times nee na en tout cas lu jëm ci mandat yu ëpp yi moo nar a taal Afrique journal bii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Didier Awadi moom nag nee na ma ngi woo askanu Sénégal gi yëpp maanaam ñu taxaw tay sunu bakkaan ngir ñetteelu mandat bañ am ci réewum Sénégal réew mi quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaa yi ñoom nag mbooleem loo xamante ne ab grève la woon daat nañu koy dakkal ba pare dànkaafu maître Malick Sall nee na ñu ko nag na nga respecté engagement yi nga xam ne jël nga ko yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum yoon ñoom nag benn weer la ñu jox Macky Sall ngir mu wàccoo ak engagement yi nga xam ne maanaam jëloon na ko su wàccowul ak moom ñoom nee nañu dañuy delloo buum sa mboy mboy ga maanaam dañuy commencé waat grève yi yéen kaay gi di sunu làmb xëy duñu xamalal ñu combat Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux a tëggal Balla Gaye 2 mooy Balla Gaye Bombardier wala Eumeu Sène Lac de mooy ñaari plan yoo xam ne moo dese Gaston Mbengue yéen gi di stade mu xëy di ñu xamal ñu Kalidou Koulibaly sa Manchester City jamono ji mën nañoo wax ne lépp yemb na waaye am na ñeenti mbir yoo xam ne maanaam moo koy xaara defaraat défenseuru Manchester City bi fas yéenee jël ay coupe ba pare xalaat meilleur défenseur xalaata jël ballon d'or africain wala ballon d'or mondial Lionel Messi